ne Sénégal ñëpp gis ko Macky Sall moo fi nekk war a dem bi mu waree dem fi mu nekk mëtul sax deux mois yi sax un euh, weer sax presque mëtatu ko wala weer ak lu tuuti moom moom moo moom fi dese mu ngi koy wax naan damay dem le deux mais damay dem le deux boobu il faudrait ñu xam damay dem yow da nga war dem da ngay dem mais acte yi muy posé nii pour lan mu koy posé pour lan ay acte d'amnistie ak yooyu loolu pour lan la moom dafay dem na bàyyi dëkk bi continuer y a des gens yoo xam justice mo leen téye woon après après des enquêtes de police ak xam nga romb buñu kenn rek di japp xéne na am ñu demee non mais la majorité bi né ñi li lañu def ak li ak lële mu jël bëgg jël fee yoyu amnistie ko non lool du ko ki motax ñu né puisque moom mu ci logique boobu te kenn téyewu ko mu melni ni kenn téyewu ko parce que y a des sénégalais sax ku d'accord ci parce que y am na sénégalais yo xam ñom dañoo d'accord ci ci ñom ñëlé ëpp leen ay droits wala loi bi di defal nee ñi la te duñu leen ko defar sénégalais yi d'accord ci loolu dafa bari mais nag loi bi ñu koy defar loi dañ ne loi bi ñu koy defar pour ñëpp la képp ku ko violé rek dañ laa war a teg yoon donc ñun moo tax ñu ne dañuy ñëw def benn proposition de loi boo xam ni dañ koy yóbbu assemblée suba jox ko député yi bo xamni puisque dañuy bal rek nañu bal crime yi fi am 1960 ba légui et que puisque dañuy bayyi rek normalement ben prisonnier waratul des ci kaso yi pour quelque motif que ce soit parce que ñuy amnistie ni sous sous prétexte de xaw lan politique et d'apaisement ña nek ci kaso ba amna ñu bari ño xam defuñ sax genn walu ñom li ñu def. non waxul manifestation ñañ fa arrêté y' a pas que des manifestants amna ño xamni ils sont accusés de crime ana ñi ñu talon bus yi dañ leen japp ana ñu defoon leneen ak leneen ana ñu doon yàq alalu nit ñi ana ñeneen ak yooyu ñooñu jàpp ñooñu bu ñu leen amnistier war nañ mën a amnistier sénégalais boo xam ne mës ngaa def dara moom nag dafa jël amnistiam teg ko diggante deux mille vingt ba deux mille vingt quatre ñi ñu administ amnistie yëpp xamuñu leen mais xam nañ laa la majeure partie ñu defoon lañ ñoo nekk ci kaso bi ñun nag mënuñu ñëw naan amnistie bi dafay dem deux mille douze wala dafay dem deux mille non. Nous ko commencé Sénégal commencé woon ba fi comme ça Sénégal Sénégalais, yam ci loi bi ku nekk loolu neex nga def boo gens qui ñu politiciens, politicien nga ñu Nous gens qui nekk ci kaso bi ñi doon ci nous bi ñu ñu déclaré wu seen bopp politicien ñu bàyyi mu logique c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit Macky amnistier des faits qui concernent mais qui concerne la République du Sénégal et que la justice police dox ko ba japp len gendarmerie wala ak japp ba japp len police euh, justice téye len Macky Sall di leen bàyyi il n'en a pas le droit te lolou tax mu koy def c'est juste pour plonger ce pays là dafa bëgg a delloo dëkk bi ci problème yi mu nekkoon 2021 googu ñoñu muy bal parce que ñoñu buñu ñu lolou lañuy continuer amul dara lu tax duñ ko continuer donc problème bi fim mu toll nii Macky Sall la Macky Sall luma moy problème bi parce que bu fekkoon dafa bëgg Sénégal am jamm ji muy woté na démissionner mom weer sa desetu ko bu démissionner institution yi dellu des parce que yi ñuy def ni yëpp téguñ ko fenn dialogue national bi amul légitimité ak loi droit bu muy l'élection, élection Macky Sall l'élection. Le conseil constitutionnel mënul fixé élection té loolu buñ ci yeggee bu le droit bi da ngeen effectivement ce n'est pas prévu donc puisque tout ça ce n'est pas prévu c'est day dem mais lu muy créer ay crise fi moy wax bi merci beaucoup